hey Momo Camara boo ko nuyoo sax day jàpp ne yóbbu nga xam-xamam booy bi bëgg na jàng xobena moy kraagu école inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Muhammad Kamara. ñu gënoon nga xam ci moom moo Camara bi neewon ci série boobu ñu naan Virginie mom lañ ñu annoncer léegi ni def fi ko da génn aduna léegi di euh, xalé bo xamni ni ràññee nañ ko lool ci série boobu nga xamni ni Virginie euh, ginaaw nak tawat gu gatt gi nga xamni amon nako ci fan yu neew ñu ngi leen di annoncer ki nga xamni euh, modi mohammed kamara ñu gënoon ko xam ci Momo Kamara, fofé ci Virginie ñu ngi leen koy jaal di ko jaal Sénégal yépp mais diko ko jaal monde cinéma bi pour di ko ou également waa Marodi TV